la la. lii de pour gars yi yi laay xuuxal nii rek. mais mais ay pigeon la wala ay lan la ay pison ay pigeon la kii bu baax bi la. kon gars yi am nañ problème de. waaw Saal a ngi nii. Uh-huh. Saal ma taxaw nii woo ko mu ñëw Saal. kon kon mbër yi ngay yóbbu boo amee combat. Ah, mais dañuy ñëwaat. yëpp ay ñëwaat ma leen bàyyee fii ba damay dem ba bawal bàyyi leen ñu ñëwaat ñoom ñi ngay gis. Uh-huh. même booy bëree mbapat yëpp. waaw. ba lii mystique la wala. du musique kii ay ay affaire la waaw booyee boo dand tuuti nag. waaw ay mbir la de gis nga ginaar yi. kon ko am combat gaa yi am combat yërëm nga euh, sa combat ak kii kii waaj nga ko de. gaa yi ku ma jëlaat bi yoon du baax ci yow. benn piéson laay joxi bagage rek mu libéré la sa kër. defal ma li ma bëgg waaw. moo tax ma garder leen nii. ba est yi rek nga fi est-ce que amaatoo fi yeneen. la am na yu dox yi nag. parce que ah. ñoom dañoo mën a dox quoi. damay damay tijji rek ñu dem seen yoon. mais yéen dañ leen di gis da ngeen jël pigeon yi soo koy indee stade da ngeen di naawoon mais dañ naan pigeon voyageur dañuy ñibbisiwaat loolu c'est vrai. c'est vrai parce que yàlla yii bu ma ci bàyyi woon eh, stade ba lay ñëwaat fii Medina waaw. ay tegtal fois ñu tegtal la ko pigeon boo gis nag gaay bay ay tegtal la waaw. gaay gaay bu ñu amee combat dañuy ñëw fii jël si pigeon yi bàyyi ñu ñëwaat saa bu ma ñëwee fekkaat leen si gale bi su suy weex yi. waaw. mais yii mosuñu leen cee def dara comme côté mystique. yii nii pour. doon ci am benn problème. non non duñ ci waaw des nag yaa ma gën xam parce que naawal boobu ngay gis duy caaxaan de. kéwal <laughs> ah, yi non mbëri yërëm naa leen ah <laughs> ndeysaan nee na lii daal non mbëri nag wax dëgg yàlla nag ah. Brahman bu ma nee di moom bu baax bi. bas <laughs> neer bi mooy ba xanaa après bu ñu dem dañuy ci jox ñu yóbbaale wala dañu ñëwaat. bii nii mais est que du ñëwaat mbër. mais est-ce que du ñëwaat suñ ko yóbboo. ah kon jaru yóbbu. aca bas kéwal la woon gis nga ak pison yi ñu seet si ko ànd ak équipe làmb tey ñu seet si ko nii ñëw yéeg mu won ñu pison yi mu doon yóbbu estaat ci ñim ci daan ak ñi ko daan ñëpp prison yaa ngi nii aca bas <laughs> ñi nga daan ñi nga daanul ñëpp ñi ngoog <laughs> après nga bëri suñu tax tëj ci saison bi euh, nga tëj mhm. mooy nga xamante ne moom mooy coronavirus bi euh, euh, d'après loolu ci lan nga nekk instant bi yaa ngi ci entraînement waaw ma bëreeg si jota yàggul dara sax après ci la ñu baaree kii làmb yeeg yépp yi doon am waaw may ngi continuer samay entraînement waaw maa dem géej matinal bi bu ma xëyee dem saal laal laal yem rek ñib si noonu laay def waaw. instant bi mën nañu wax làmb tëj mhm. na. ndax gis nañu combinaison yi ñu kéwal instant bi ci loo nekk parce que. gis nañu gars yi ñu ngi gis nañu euh, nu mu euh, euh, fan yii nii yàggul seet nañ Jackson Junior. mu mhm. bëri woon ak Pape Ndoye mu lim la. ne mhm. daf pare na pour bëri ak yow daa war a bëri ak yow soo ko gisul tamit dégg boobu génn wax waaw daa wax boog boogam rek waaw mais du ma moom na na bàyyi ba ci kanam rek na liggéey ba ci kanam nit moom kenn du ko xeebal ay yëfam. mais nag du maak moom quoi. yaa de dul maak moom rek. xam nga Jackson. xam naa ko ni rek parce que maa ngi koy seetaan waaw. bëggoo ko baaboo bëgguma ko moom wax dëgg yàlla. na bàyyi boo ci kanam rek na liggéey ba ci kanam rek. li mu def du dara. làmb moom ak looloo ànd. Hmm. waaw loolu du dara. mais kon wax dëgg yàlla bokkul ci adversaire yi moom. Hmm. waaw bu fekkoon moom laa nar a bere ren moom du ma bere moom. su lu mënoon moom rek moom fi nekk ren boo ko jël doo bere martiki sax ma gëm. nga ne balance. waaw ak alxuraan. i Jackson du question du question nag bañ ko wala dara. waaw dem dam li ma fi def na na def lu toll ni ma def na jaar fi ma jaar bu pare bu agsee loolu moom bu boobaa day yomb. booy bi xam nga tey jii bu doon ku daan nit jël bu rëy wala nga def jaloore rek ñu yëkkati la jox la ko ca kaw kon mooy loolu boo defee dara da ngay xool ñi nga xam ne toloon ngeen lu ngeen def nga jël leen. mais du question da ngay def lu la neex rek laaj lu dem ci ku la neex non bari nay adversaire Bawol. kan Jackson. Jackson bari na fay adversaire ñi ko fi soxla bari na. comme waa ma yegsil moo koy rasu rek. Hmm. yegsil. bu ko soxlaa combat bi ci moom la des moom Jackson waaw. sa combat ak Thiatou Yoff. waaw yow yooyu yëpp combat yooyu neexut. bëggoo Thiatou Yoff. non non. ii Thiatou Yoff. Thiatou Yoff donte kat sax bëggu soxlawu ko. soxlawu mais kéwal kon fan nga teg sa bët. rek rek ni ay géngoo laa soxla. waaw. yow da ngay foo wala da ngay. non foo fan. rëgg man weesu naa may fooyee. gaa yaa ngi koy gengoo ku ne naan jot bu ma ko jël du ko jël. nañ ma ko jox newul ci combat wu lan moo ko teree neex rek léegi ay naataango la di. nga ne kay naataango bëri bëkk dem Giri Deo. fan. Giri Deo la fi daal. waaye ma ne li ma wax wax yooyu yëpp. yooyu pakala waaw. ah ah bëri que nu ay ñoom ay ñoom chaque euh, chaque wara loolu lépp mbele lool lépp àgguñu ca mbele mbele la comme que gars yi ñemewuñu ko ñu ngi koy géngoo nañ ma ko jox man soxla naa ko waaw ah. Reug Reug laa wax di waxuma Gris ah. lam ji comme ka lu nooy amu fi kenn gars yi lu dëgër la ñuy wér

ok mais bari na fi ñeneen. comme ñan comme que yow gis ñu koy puusante gaa yaa ngi ku nekk ngi naan ñii sa morom nañ ma ko jox. Reug moom mënul du ko jël. ndax maak la ma lay laaj Reug Reug Tapha Tine du moom mii mooy ko <laughs> à part Reug Reug yan adversaire ñoo nekk sa kanam.

Mama Lamine comme daan naa seen grand comme moom daan naa ko. Mama waaw mu nekk fi di contexte nañ ma jox seen grand bi gars yi mooy ne ko rel. waaw ma ko jox. ne man daanaan laay wér de nga gis ma laaj cuune man lu ma doyee cuune. ni ko réel daanaan la de. di laay wér loolu laay wér nag loolooy neexal loolu la matière yi bokk di kuy bëri di xeex donc la nit ñi wér de. kan Mama Lamine fii la toog naan ay kewel soxlawuma ko kewel yiwuma ko lii yow kewel duma la daan la jël bu rëy Sénégal yëpp teg seen bot nga soxlawuma ko maa ko ëppi victoire maa ko ëppi combat maa ko dàq ba dàq koo xeex duma ko daan ko mu naan soxlawuma kewel man nii maa ko lijjanti wut maa ko soxlawut kan waaye non mayuma ko rawaas moom moo toog di wax na ne soxlawut kéwél kéwél nii ko soxlawut xam naa ne la fi won loolu lay bañaat sax moo tax. Ah, am na nu muy am na nu mu doon demee sax combat bi mënoon na koo jaay mu taxawaat mu amaat ci wuli yu gën a hmm. léegi nag am na combat. moo waaw li ci kanam raw di bët. Hmm. waaw. Eh, promoteur yi ñu ngi may contacter kay. Hmm. waaw sama combat dina taxaw du yàggul dara. waaw bu soobee yàlla. ci mu amoon naa doon ci ñi ma lim de. Eh. waaw. Eh. parce que ñu may am nañ man sama xel lu ma wax rek am na lu tax ma wax ko waaw. sa ak waa Bawol jàmm ak salaam la ñu seq yow mooy cinq sax nga fekk leen fii chaque jour fii la ñuy toog raaj taal ataaya commentaire entraînement jot ñu dem entrainement bu leneen amee it noonu lañ ciy taxawee ñun ñëpp jàmm ak salaam la ñu seq waaw Bawol jëpp à euh, man am na taalitu mbër yeneen ngay mais bariwut nag waaw bariwul de bu dee ci mberi mbapat yi moom gaskel moom sama gaañ la quoi parce que damay dem galeem def fa ay ay fan palmarin ñu am di dugg fépp di suñuy affaire même aussi caat sama ga sama la parce que. bi may dem Colobane boobu moo ma dalal ma normal yor ma ba ma kii di ma won yoon wi amoon naa ne daal ñooñu daal xam naa ne samay waay lañu quoi ci ñi nga xam ne nii xalaatuma ne dinaa bëreek ñoom waaw. Kéwél ñu bari liñ lay jëwee mooy da kii da yambar. yambar ci lan. cest à Kéwél yow da sa làmb. Mhm. mënoon naa dépassé mooy cest à amul xorom quoi. Ah. comme loolu yow yaa ko gis rek. non mais sama mais sama combat yow sama combat ni muy demee. wala man léegi nit ñi lan lañu ñu bëgg. wala dañoo bëgg kuy daw di yéeg ci tribune yi di ceeb kuy dem fu ne. man man bu arbitre bi soufflé damay xeex damay anime damay xuloog adversaire damay def lépp lu mbër di def lu am caaj dama koy def. su ma sumee koo gars yi kontaan su ma dongalee takk ngem daagu ñëpp bég loolu kay xorom mënu ko paase. Ah, mais yi kon kaani lañu ñu bokk bokkuñu xorom waaw. est jarul nga gën a yokk affaire yi xam nga gën a yokk bi ah, caay-caay bi léegi boo ci xamee lu ci des après ngay wax ma rek may dugal ko ci biir. Hmm. waaw. mel moom. ma mel de moom macha allah. bu hmm. waaw. moom am koo xamante nii ci làmb la ko mu nekk seen naataangoo nekk un jeune espoir. waaw mhm. euh, mun nañoo wax ni fan yi sax euh, làmb dafa xaw a tàng tuuti barki Demba Ndiaye booyloo bu Pikine ñu koy jaale. Mhm. waaw mu nekk xale boo xamante ni macha allah xam nañ ko. di ko jaale waa Pikine yëpp di ko jaale seen waa kër parce que mës naa ko invité émission rajo waaw mu nekkoon xale boo xamante ni macha allah am na avenir ci làmb Boy Lo keneen ki tamit mu Jules Baldé Junior. Mhm. mu génn àdduna démb euh, génn àdduna Jules Baldé Junior. waaw di ko jaale waa Pikine di jaale yaayam di ko jaale ñoom Ama Baldé ñoom Malaw Seras ñoom Falaay comme man ñi ma fa xam rek xam ñu ànd ak ñoom waaw même moom Jules Baldé Junior maa ngi koy ñaanal yàlla xama fa mu jëm daqal ko fi mu jóge xam yaa ngi dégg man Fil Baldé Junior ñoom na ba sama kër ànd ak bébé Diène ñëw nuyu ma ñu saafante mais dara nag taxul lool du dara daal mais maa ngi koy ñaanal daal wax di yàlla fa mu jëm daqal ko fi mu jóge yàlla na ko yàlla xare ajana waa di jaale booyloo itam di ko jaale ñoom tigooyin ak seen waa écrit yëpp di ko jaale famem di ko ñaanal yàlla aussi yàlla na ko yàlla yërëm taxaare ajana te ñun ñu fi des itam yàlla na nu yàlla yéexe quoi waaw ñu bari kéwél dañ naan làmb espoir yi xaw a tuuti si ñoom parce que làmb amul suivi gis nañ ni ku ci feebar. Mhm. da ngay am problème faj dañ lay ketal pour ñu faj la rek c'est tout un problème yow en tant que jeune ban message ngay lancé parce ci làmb nga nekk gis nañ ni bëri sonn dañuy feebar bu am affaire faj yow loolu nan nga ko gisee. mais loolu gars yi ci kaw ñoo ci war di jàpp rek parce que tey jii moom. garab gu ndaw moom mooy doon gu mag tey ji waa làmb ji war nañu tey mbër mu ci feebar ñu xam ne kii ci lamb ji la bokk ñoom ñëpp ñu xar ci seen tànk tubéy waaw te xam ne ñun ñëpp ay mag ki rak la lamba ñu boole rek bu jeexee jeex na tey ji ku ci xewle gaa yëpp ay teew waaw tey moo tax lu ci waay metti li daal ñun ñëpp a ci war di taxaw waaw jàpp ci daal mu kii waaw noonu la demee lamb ji de moom dafa xaw a mel ni lu taxaw daal kon nag bu dellu si waatee tey jii ci làmb moom ñun dañu ci kontaan di ko ñaanal daal ca kaw ca kanam moo xam lu mu ci bëgg daal yàlla na ko ci yàlla defal quoi waaw mais kontaan nañ ci daal. Mhm. Balla Gaye Gris Bordeaux noo gisee. daa taxaw. combat boobu noo gisee combinaison ci lu ma leer di taxaw na wala taxaw. combat boobu taxaw na. Ah, la rek day neex xam nga bu njëkk ba moom. dañoo ñëwoon ñii ne pareegu ma ñii ne damaa def nii ah bii moom dina dina leer. Balla Gaye de daanaka rawaasam moom da yomba gaaw moom. waaw rawaasam yi ma gis yëpp de baat ak tont lay doon moom. waaw waaw. Mm-hmm. bala moom pare bërekat la moom Gris day bëre mais bokkuñu bërekat Gris day day sàcc Gris day sàcc mais Balla Gaye day jàpp bëre day def action ci kaw action lay def. waaw. ci komba bi instant mu toll nii de man de wax de moo doon jox favori moom bala laa koy jox moom. waaw. Gris Bordeaux combat bi it mën na ci am lu ne xëy na mën naa def comme noonu muy bëre rek. juum loolu la door la góor droite sàcc la jéem laa taf. kalaake ci kaw loolu it mën naa am bala moom mooy favori moom. man ci moom laay teg moom wax dëgg. waaw Eumeu combat loolu combat yërmande la. combat yërmande. combat la. maanaam du neex. du neex. du neex. tax du neex. combat boobu mën da neex Eumeu Sène xam nga ne moom Bombardier loolu combat yërmande la. Hmm. waaw mënta neex comme bu neex xam nga lu koy neexal combat bu neex kay di am xeex am béréb contact mu neex. yu ne combat la waaye combat boobu daal tawaay dar dar benn si dafay am rek mu jeex ku ne ñu beeti. kese ko ci ci ban mën naa doon ci ñoom ñëpp. Bombardier mën naa defaat na mu defoon ama seen mën naa ñëw it ñu def ko neneen. Hmm. waaw mais daal benn site moom mënu ko rom am na favori boobu amul favori

barke yàlla komba boobu benn combat bu neex la waaw. ci ci Lac lay neexee wala ci Tapha Tine. ñoom ñaar ñëpp parce que Tapha ak Lac de Guiers ay moroom lañu dañoo dañu ay naataangoo lañu daal waaw boo ne kii a mag boo ne kii combat bu neex lay doon te aussi combat rawaas la bu yomb. du yomb du waaw. parce que gisoon nañu promoteur yi. daaw am na combat amoon ba léegi amul. Mhm. am na yeneen combat yi te dañ doon gars yi dul tiit naan na mais instant lan nga gis. li ñu gis mooy di ñaan yàlla <clears throat> lii ñu fi wax ci réew mi daal mu jóg fi xaw ma lu mu doon waaw loolu daal bu fi bu ñu ko fi jëlee. coronavirus. la. Hmm. na fi jóg bu pare xaw ma coronavirus la xaw ma corona lan. Hmm. mais moo téye affaire yi daal. waaw bu fi jógee daal moom ñu mën a xam làmb ji ñu lay demee. pour yow yàq yi làmb ji lan moo ko yàq lam ji kay yàquwut. Hmm. làmb ji yàquwut de. Hmm. waaw. promoteur yi day comme ni ma leen yàgg di gisee rek laa leen gisee man de wax dëgg santiruma ci lu yàqu moom xanaa xëj na ñu ne feneen ñoo ko sama man santiruma ci yàqu-yàqu de. Hmm. waaw. tey CNG boo amul loo xamante ni tey boo sañoon incha allah kii biir di ñoom kéwél am na ñetti yoo xamante ne bëgg na koo changé te li ma ma ñett yoo lan comme par exemple yéen da ngeen di kaas dagg yi da ngeen di kaas am na ñoo xamante ne sax dañ naan des boo amul loo xamante ne da koy changé. Mhm. tey kéwél ne man saison bii di ñëw moom lii moom war nañ koo changé ci côté comme bi tey yeeg wala lii naa ko ñu indiwaat leneen. man de li ma ciy changé lu moom daanaka presque sax bariwul arbitre yi daal lenn man mooy sama problème tey doo bëreeg mbër boo àgg fu sori genre werkondo wala affaire yooyu ñu atte ba pare te duñ la jox victoire waa loolu it war nañu koo xoolaat bu baax wala mbër bëreeg mbër ñu xeex bu jéggi saako yi kenn génn ñu awartiise la loolu itam du yoon parce que ñaari nit moom bu ñu xeexee faw kenn génn avertissement dafa war a jaar yoon kuy daw xam nañu ku daw ku ñu dox nga daw jégi lañu war a aortiser wala kuy arrière woo taxaw mais bere xeex bu génn loolu waruñ cee dagg kenn arbitre mbër saa bu agee fenn adversaire dañoo war a atte jox la victoire wala ñu bàyyi nga agale ko waaw. Kewel euh, mhm. mbër yu mag yi. de man instant yi mu toll nii moom maa ngi ci Tapha ak Balla rek. waaw. waaw. Tapha tafaatin sama ganaar la damay xool ci moom bu baax waaw damay roy ci moom <coughs> waaw. ñu bari dañ leen di jëwee léegi am ñoom te ne ay mag bu bëri lañ parce que mbër yi ñëwatuñu régulière ci li nga xam te ne moom bëre jàngoo lañ ko ñëw rek soobu dem. ñàkk mag bëri xanaa loolu léegi la am mais ñun de du ñuy mag bëri moom waaw du mag bëri te ba ñuy toll nit yàndaam yi ba léegi dañuy bëre. kon du ñu mag bëre mag bëre moom ku ko doon war nga koo xam ne ñun du ñu mais parce que mais loolu mooy gars yi ne ci koñ bi rek comme ça nga ñëw ne ci koñ xaw a am forme tuuti gars yi jëy la acca ah, lam mbër nga nii naa dugal la ci lam nga ñëw loolu mooy mag bëre wala gars yi jëy la rek waaw mais lamb boo ko naree boo ko naree doon dëgg yow. boo doonee booy nga ngay commencé di ko fooye di ko kafantoo boo xam ne lii même boo ko doolul itam nekk na si yow. loolu day yàq day yàq lamb wala kii day faral. lan de yàq lamb. mooy ñi am te dañuy boo dikkee màgg bere bu la defee ci sonalee nga génn rek fi ñuy ak di bere. <laughs> Kewel day voyager wala fi lay préparé. <laughs> ah ça rek man de maa nii rek. waaw lu ñu yàlla jox daal ñu jël voyage kii yëpp luñ ci am rek jël waaw. <laughs> ngi fi. <laughs> looy tàggatoo. xanaa wulee fi jaar. <laughs> ak kaw jaar wuli la xam naa ko. non wuli baaxut. mais si mi ngi si jàmm waaw. waaw bu am soxna am na différence. loolu ban différence moo ci am. Ah, <laughs> man différence la ci am. bilaay loolu amul différence benn la rek gaa yi wax rek. Mm-hmm. waaw. bëgg am soxna ak bëgg am soxna amul différence. benn ci lépp benn la. lépp benn la. waaw di tàggatoo. waaw di tàggatoo di sant sama gaay rek ñi nga xamante nii ñooy son ci Kewel ku ci mel ni Cheikh Anta maa ngi koy sant bu baax di sant Bada Dione suñu minancière boo xamante ni ci xuloo la ñuy dëkk gara ba dajoon waaw <laughs> saal ba ñu ngi koy sant di sant Fallou Ngom di sant mbëri écrit Bawol yi yëpp sant sama ñaari gars yi seex Cheikh Thiaw di sant sama mag yi ne Europe yëpp di sant grand bi ma jox fi nii Ousmane mu ngi France Elas ñaa ñoom gars yi yëpp maa ngi leen di sant di sant Bint sama jigéen bu baax ci koñ bi la nekk moo yor bool yu baax yi waaw maa ngi koy sant di sant waa Medina bi yëpp di sant waa Bawol bu baax baax waaw di sant ñëpp daal ku ma limul rek damaa juum instant mu toll nii raw tolluwuñu ci sant te ñuy boole ñëpp rek tënkaale leen ci biir waaw. cantam gërëm ñeen na ko di ko bëggewaat bu baax a baax mu nekk koo xamante ni kenn du ko présenté kenn parce que mu yaru mbër la boo xamante ni macha allah làmb da ko bàyyi xel looloo tax mu déplacé wu waxtaan ak moom. dégg ngeen li nga xamante ne ay adversaire am mu wax dégg ngeen li nga xamante ne moom la wax di ko remercier nag bu baax baax di ko ñaanal jàmm di ko bëggee moom bu baax a baax Cheikh Diouf ñu koy remercier bu baax a baax di bëggee équipe bu wasaare lamb yëpp kon ni ma koy waxee rek lay fatigable Bassirou Diouf di la bëggee bu baax a baax sama séeréer bu naay si yàlla sa jàmm yàgg di bëggee da ngay ñuy suivre si wasaare lamb wasaare TV gis nañ ñaan ya gis nañ encouragement yi gis nañ lépp mais li ñu wax rek nee ñu ne yéen commencé guñu dañuy waxtaan rek te incha allah le meilleur reste à venir seen jigéen seen xarit Fatima moo fi jaaroo di wax rek gars yi ñun ñëpp xaar incha allah ay émission yu bees tàkk ak kii yu amul fenn ñu leen koy defal ci kattan yàlla xaar leen ni ñu ngi ñëw di bëggewaat gars yëpp di leen jox dig daje incha allah beneen invité merci jaajëf.